Issa Preira euh, la ñuy dalal sànq nag euh, Babacar ji bu ñu wax guy di saa mooy euh, toftal ci li mu wax ci garab yi ndax tey ci mm. àll bi ngay des mm. ndax te ñu ngi dagg garab yi at mu jot nag Sénégal mi ngi ñàkk lu bëri ci li nga xam ne moom mooy àll bi te lool dafa indi ay loraange dafa indi ay loraange yu bëri mm. Fatou soxna Fatou wax nga ko at mu nekk Sénégal dina perte lu toll ci quarante mille hectare ci wàllu àll mm-hmm. loolu boo ko calculer diggante mille neuf cent cinquante ak tey li ñu parce que àll daanaka kon ay millions d'hectares la. Mhm. Euh, bi daje nañoo ak ki nga xam ne mooy Ali Aydar. moom mooy directeur général bu euh, agence nationale de reforestation de la grande muraille verte. Mhm. mais ci euh, waxtaan wi li ñu wax reforestation mu ñu gën a intéressé. Mhm. parce que dañu jël prétexte ci 37e édition. journée nationale de l'arbre mais jàpp nañ ne semaine la jour boobu c'était juste un jour symbolique. mais semaine bi yëpp on va célébrer l'arbre au Sénégal. pas assez symbolique du président de la de la République fukk jëmbat garab euh, euh, quand même c'est assez assez assez important c'est un mm-hmm. message mm-hmm. Euh, Ali Aïdar nag jox nañu ay xibaar yu bari ci wàllu jafe-jafe yi nga xam xam ne moom la ñu am ci jëmbat garab gi mm-hmm. ak yi nga xam ne moom la ñu jànkonteel ci wàllu déforestation xam naa fàtte dama leen bàyyi nga dugal élément bi élément bi di saafara def waxtaan ci ak Ali Aïdar sunu alom gi ak garab yi prétexte bi wax na ko journée nationale de l'arbre wala semaine nationale de l'arbre lu ci mën a am garab ak yi sëriñam faaw ñu jàppale ko ñu dem seetaani élément bi di saprera def euh, dellusiwaat léegi léegi ci plateau bi. 40 ci ay hectares àll Sénégal moom lay ñàkk at mu ne diggante daay yi trafic bi ak caxat caxate gi xayma gi bàyyeekoo ci programme des Nations Unies pour l'environnement. Euh, gëstukat yi borom waa ONU di topp euh, àll bi nee nañu ñul at bu nekk dina ñàkkale quarante mille hectares waaw quarante mille hectares danañ ko ñàkk diggante trafic de bois diggante këriñ diggante feu de brousse ak diggante déforestation anarchique. déforestation bi daanaka amul benn région Sénégal bu ci mucc diggante 1950 ak léegi néew na xeetu garab yoo xam ne nekkuñu en voie de disparition. or garab yi nga xam ni ils ne sont pas menacés de disparition garab yi nga xam ni nekkuñu ci buntu seey bëriwuñu Sénégal bëriwuñu sax ci àddina bi. naa la jox benn exemple gis nga en 1950 xam nga 1950 daanaka téeméeri at la yàggul trop 1950 2000 2020 donc juróom-ñaar fukki at la matul téeméeri at bi ñuy jox permis exploitant forestier yi pour ñu defar këriñ. pour jaay ko Dakar ñu ngi doon délivrer permis ci ci àllu Sébikotane Sébikotane cinquante kilomètres de Dakar raxas nañu loolu yëpp di dem ba léegi ñu ngi ci suñu buntu frontière ak Guinée Conakry ña nga ci dans les derniers recoins de la forêt de Kolda donc dañu exploiter loolu yëpp. dégâts yi bari yàqu-yàqu yi tamit yaatu na lool. urgence bi tey mooy fexe ba dabu li jote yàqu ci loolu nag agence nationale pour le reboisement et la grande muraille verte am na ay solution yu mu joto indi Sénégal dafa am 7613 ASC foo dem am na ASC association sportive culturelle ñun ñu bëgg ci yokk environnemental maanaam ñooñu balaa ñooy football wala bu ñu paree football ñu boolee jëmbat ci seen programme ma joxe benn exemple wax naa ko bi ma demee ngoo ñu ñaan ma ay garab benn ASC man leen dinaa leen may téeméeri garabu koko boo leen amee place boo leen ko jëmbat ngeen toppatoo ko diir ñeenti at garab bu nekk dina leen jox 2 millions kon ASC bi dina mën am xaalis pour organiser ay manifestations mais en même temps jëmbat na garab garab bi dina leen jox koom-koom dina leen jox euh, ci ci social bi euh, bànneex dina indi taw. dina indi toos ci suuf si dina jox jur yi lu ñu nekk garab dafa bëri importance. diggante 2010 jàpp 2015 ci Casamance rek Sénégal ñàkk na fa lu ëpp un million ci ay garab nguur gi jël ay mesures pour sanctionner trafiquants yi réguler permis de coupe yi taxaw ci aaru ci wàllu feu de brousse yi waaye li ëpp solo ci gis-gisu Ali Haïdar tey mooy fexe reboiser fépp ci réew mi. mu doonoon élément di sa PRA Cheikh Tidiane euh, reboiser nag fépp ci réew mi solution la. Mhm, waaw euh, solution la mais euh, avant loolu problème bi nag dafa maanaam mi ngi fii quoi te bu léegi pour ñu am ci saafara dafay jafe loolu sax mooy tax di saa ma day laaj nguur gi fan la toll ci mesures yi ngir fexe ba trafic de bois dakk fii ci réew mi. jërëjëf euh, Cheikh Tidiane euh, trafic de bois euh, nguur gi jël na si ay dogal. Mhm. bu yàggul dara année dernière rek wala il y a deux ans en 2017. Euh, ak euh, en relation ak président bu Gambie bi mu fi ñëwee vous vous mhm. euh, amoon na ay dogal yu ñu jëloon ci ci ci ci ci recruter ay davantage ay ay ay services d'eaux et forêts. Mhm. mettre en boole armée bi ak gendarmerie bi ci li nga xam ne mooy lutte contre la coupe abusive de bois et le trafic illicite surtout. Mhm. loolu rawatina ci zone ci zone sud bi. mais mais Diaw il faut dire que comme wax naa ko sànq ci reportage bi chaque année on perd près de quarante mille ci wàllu ci wàllu ci wàllu forêt. wax na ko également diggante 1950 ak léegi ñi di jaay këriñ bi ñu bi ñu leen daan jox permis sibikotaan lañ daan daggee garab ñuy defee këriñ. Mhm. tey dagg nañu Sébikotane ba frontière u Sénégal ak ak Guinée Conakry mhm. donc parti boobu yëpp déjà amatul boo demee tey Ranérou en 1905 jàppale 1980 90 Ranérou doon ne àll la woon mm-hmm. mais boo demee tey parce que désert la mm-hmm. euh, euh, garab taxawatu fa mm-hmm. euh, parce que dañ ko dagg te kenn defatul lu ñuy wax reboisement donc yooyu ay ay jafe-jafe la il euh, y a ce qu'on appelle également la coupe anarchique. Mhm. dañuy dagg n'importe comment. nu euh, mu leen neexee te duñu te duñu te ko te duñ ko duñ ko mhm. euh, nguur gi am na ci ay responsabilités naam état bi population yi également am nañ ci ay responsabilités parce que certes benn partie bi commerce la njaay la dagg garab def ko këriñ wala jaay matt. Mhm. mais benn partie également population bi. xam nga foresterie également secteur d'activité la. secteur d'activité la buy génne xaalis. donc buy génn xaalis donc dañuy ñoom mais ñoom euh, traditionnellement dañuy dagg garab yi dem jaay ko def ko matt def ko xaalis ñoom donc du coup yooyu dafa dafa yàgg am te amul lu ko remplacer donc ba nga xam ne ne que en moins de cinquante ans soixante ans Sénégal dafa perte environ 60 pour cent de de de de li nga xam ne 60 à pour cent li nga xam ne. moom mooy moom mooy euh, àll bi. ci zone yooyu exactement jot nga ci cité Aéra Nehru yan la lan moo tax ñu gën leen a ciblé ba garab mu mën a les les les zones sont problème yi dafa dafa dafa wute selon selon zone yi. tey boo demee dans dans dans le sud du pays bokk na tey ci li gën a tax par exemple Casamance tey. xam na yéen a ngi fàttaliku histoire bu Bofa Bayat. histoire boo fa baret li nekkoon ci ginnaaw mhm. affaire trafic illicite de bois la woon mhm. donc euh, partie boobu dafa am ay yeneen euh, euh, facteurs yu ne daf ci laxasu ba nga xam ne sax dafa dafa nekk genre politique ci ginnaaw mhm. am ñu ngi ñu wax souvent conflit Casamance bi bokk na ci li tax vraiment mu jafe mu jafe résoudre ay trafic yu am ci biir lu ci mel ni trafic de bi trafic de bois bi da indi xaalis bu bari donc boo demee dans la zone sud mooy Casamance Ziguinchor Kolda ak Sédhiou trafic de bois bi euh, dafa dafa jafe dafa jafe contrôlé. surtout chinois yi surtout chinois yi heureusement que euh, maintenant euh, avec concours armée armée bi. Mhm. concours armée bi yu yu bëri xaw na wàññeeku ak relation yi nga xam ne wala rapport. déggoo bi nga xam ne am na diggante Sénégal mhm. ak ak Gambie ci ci wàllu protection de la nature boo demee dans la zone nord tey dans la zone nord daanaka amatul garab zone nord bi nag li ko waral mooy dagg coupe de bois euh, boo xam ne euh, état bi moom moo ko moom moo ko autorisé woon. Mm-hmm. pour ñu gars yi nit yi du mun dagg foofu euh, mm-hmm. garab bant di di ñëw di ko di ko def këriñ di ko jaay waa Ndakaaru. mais mm-hmm. dem nañ ba dagg nañu. remplacé wuñu zone boobu dafa jege Mauritanie désert bi di avancé. defuñu benn benn activité donc boo toogee 30 ans jëmmu toog garab di dagg bu yàggee garab doo fa amati mm. désert bi day avancé donc boo demee dans la zone nord tey dans mm. bokk na ci li nga xam ne moom moo tax zone boobu aride mm-hmm. boo seetloo sax euh, tan tan euh, euh, ranch bu dool yi mm. la ñuy xaw la ñuy xaw a maintenir tuuti pour ñi nga xam ne ñooy éleveurs yi di am fu ñu mën a xontee seen ay jur wala di mën man mën naan également seen ay. déjà est-ce que mën nga dellusi ci euh, conseil des ministres bi mujjee am foofu mu mel ni am na ay dogal yoo xamante ni président Macky Sall jël na ko. am na ay dogal yu yu yu yees jël bokk na ci euh, bi ci njëkk mooy. Mhm. fexe bi ba nga xam ne euh, démarré démarré woon nañu benn recrutement wu agent agent eaux et forêts des volontaires de des eaux et forêts des volontaires de de de de la reforestation 600 au total la ñu war a recruter. Mhm. commencé woon nañu recruter quelques après ñu arrêté. démb ci conseil des ministres bi président de la république wax na que il faut ñu accélérer li nga xam ne mooy recrutement 600 jeunes yooyu bokk na ci également ñu accélérer li ñuy wax euh, le PSE vert xam nga si seen politique boobu noonu am na benn parti boo xam ne dañ ko dijjee ci wàllu écologie environnement donc euh, dañu pàcc boobu ñoom dañoo jàpp ne dañ ko war a accélérer beneen dogal bu am solo bu nga xam ne euh, également euh, tukkee na démb ci conseil des ministres mooy dégg nañu ko président wax ne léegi bépp képp ku nga xam ne tey dafa jënd terrain bëgg a tabax wala bëgg def dara faw nag mu adossé si li nga xam ne mooy benn dimension environnementale wala écologique fan nga jëmbat garab nga def ay aménagement yoo xam ne mm-hmm. dina permettre dina accompagner li nga xam ne moom nga bëgg moom nga bëgg taxawal. vision politique tamit daf da daf ci baax. mais tamit ak euh, askan tamit foog ñu approprier loolu parce que ma je me euh, Russie ma ko demee il y a deux ans mais Moscou. Mm-hmm. waxuma sax ci àll bi mais Moscou rek soo fa duggee da yaakaar ni yaa ngi ci forêt. Mm-hmm. en pleine ville dëkk bi yëpp. garab la garab la mm-hmm. mais après sooy dugg ci édifice yi. hôtel yeeg euh, restaurant yeeg yooyu. foo dugg di nga gis en gis de symbole benn garab ci biir édifice bi. dëgg dire que nii population bi ñoom ñoo ko bëggal seen bopp. ñoom ñoo bëgg garab ñoom ñoo bëgg lu verte. Mm. et je pense que tamit fii tamit loolu loolu moo ñu war parce que pollution bi ñuy dund. Mm. Euh, taw bi ni muy manqué des fois yooyu yëpp. Mm. Euh, abusive de boy ñuy def ñu ci bëri moo ñu koy. jural c'est c'est c'est euh, sa élément na solo ñu bu a baax. sinon euh, Fatou euh, Fatou soxna Fatou objectif Sénégal. Mhm. mooy li ñuy wax reboiser lu toll ci quarante mhm. xam naa nag bu ñu ko jëmbatee Sénégal moom. Mhm. xam naa lu ñu perte moom li des ñu ñu ko du bari. c'est na bañ a na bañ a yegg a moo tax moo tax. Euh, su ma ko mayee fàtti euh, waa reforestation waa agence de reforestation ñoom li ñu jàpp mooy mhm. il faut que ñu mettre contribution ñi nga xam ne ñoom ñooy ASC yi mhm. Sénégal am na toll ci sept mille et quelques ASC boo leen boo leen mettre à contribution euh, mhm. def fexe jox leen ay garab ASC bu nekk bu jëmbatee ñeenti wala ba juróomi garab xëy na euh, mbir mi mën mën na mën mën naa changé fii euh, ak ak ak at at yi di ñëw incha allah. Mm-hmm. très bien Dissa Preira ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci li nga indi woon euh, ci wàllum aloom gi li may wax rek sujet Dissa yi ak Fatou Kiné dafay am connexion parce que kuy wax système immunitaire rek lekk bu baax nekk aussi ci environnement bu baax ba environnement bu baax c'est important léegi-léegi dañuy jàll ci li ci yenn yi ànd ci ak Lamine Cheikh Tidiane Diawo Lamine Samb